Souleymane Sofo Cheikh Diop Eh boy sool mu ngi ñëw kooku mu ngi ñëw eh eh kara eh kay wole yow ne ko bàyyi Moussa Ndiaye Moussa Ndiaye Seydou Diallo baabu baabu yow baabu eh baabu kay baabu baabu kay baabu waaye mu dem waaye mu dem baabu kay ayo ko tu ko ni benn moto yu ndaw ñëpp ñu jëmale Mbuur jëmale Dakar Njaay am na ñu jógee Saalum am na ñu jógee Siin ñoom ñëpp ñu taxaw di xaar délégation bi incha allah rek fële si Mbuur Corre, te ndax fan lañ toll ak naka la mbooloo mi demee ak nit ñi lan pare waaye soo xoolee fii tey dina leer na Banjul yëpp génn nañ ànd ak ay gàllankoor ñu dem ba amee ñoom ñëpp fii si kàttan yàlla yu